di nuyu sama waajur sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba di ko siyaar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di nuyu tariixa yi ci réew mi yépp di ñaana yàlla def ci réew mi jàmm di naqarlu nag di jaale jullit yépp boole kook di naqarlu tiis wu rëy wi dalati ci sunu kaw tiis yu dalati ci suñu kaw nag nekkul ne tey rek lay doog a dal sunu kaw amoon na fi ñu ni lu mettee nii dootu fi am mu ñëwaat amaat ndax benn nit dugg ci jàkk àjjuma ji ñu jàll ray fa ñeent fukki nit ak juróom ñeent def ko ci teeyu bakkanam ak num ko neexee caméra boppam def ko en direct dugal ko ndax lan naqaral ñun jullit yi kon jot na ñun jullit yi ñu takkutoowaat bu baax àndandoo di yëkkateendoo di doorandoo ndax lii dal sunu mbokki jullit yooyu ñu fekk ci seen jàkk wala seen jumaa keroog àjjuma rose leen ay bal ba ñeent fukki nit ak juróom-ñeent faatu ca jombut mennum réew jombut benn dëkk ndax saay-saay ya doon xeex lislaam ba tey jóguñu fi saay-saay ya doon xeex lislaam ba tey jóguñu fi kon jot na ñun jullit yi ñu defarwaat bu baax a baax te kenn ku ne ñaaw njot ci sa bopp kenn ku ne ñaaw njot ci sam réew kenn ku ne ñaaw njot ci sab dëkk te ñu bàyyi mbirum tariixa sunu maam yépp ñoo bokk gëm yàlla ñoo bokk liggéeyal yàlla ñoo bokk gëm yonent bi salaa salaam kon xàjjale bi ci réew mi metti na xajale bi ci réew mi ëpp na te tarixa yépp benn la ñépp a bokk gëm yàlla ñépp bokk gëm yonent bi salaa salaam waaju ju ñuy wax xawma naka sàmb lu mu wax li ma leer mooy amul kenn kenn kenn ndigalul kenn xawma ku dib sëriñam waaye amul ndigalul kenn loolu mu wax ci sunu maam mu tedd mu sell moomu amu ci ndigalul kenn ba tax mu wax ko yow waajooju sàmb boo waree wax am nga loo mën a wax mën ngaa waxtaan suñ tubaa mën ngaa waxtaan si xasaayiti sëriñ tubaa yi wala nga waxee feneen fi nga waxee du fi juum nga te danga war a tuub war a jéggul ndax ñi nga laal daa bari man mii soxna xadim sëñ Moustapha sëriñ Massamba de sama maam naar la man naar gi laalu naa fi côté bu ne te naar gi nag yaatu na waaw tarixa boo dugg am na koo xam ne waajuram naar la wala maamam naar la fi nga dugg kenn dugguloo fi te def nga lu ëpp te wax nga lu ëpp boo mën te waxtaan suñ Tuubaa mënoo waxtaan ci xasaay di dangaa war a tëj sa làmmiñ ñi la teg ci ab tele di la waxloo kon dañ laa war a noppiloo sëriñ Sidi Lamine Niass yal na yàlla fayal ñu ko jëmm ju baax ku yàgg xeexal lislaam ku yàgg a xeexal réewam ba wàcc yal na ko yàlla fayal ñu ko te yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem xeexal na lislaam xeexal na réew mi bu ñépp meloon ni moom lislaam du fay diine du fay te benn tarixa du am benn problème kon mbokk yi mbokki jullit yi tàllal naa leen loxo nan takkaat sunu laxasaay ñun diine lislaam te ñaaw njott ci suñ bopp ñaaw njott ci suñ réew yi ñaaw njott ci suñ dëkk yi ni di jombul kenn maa ngi leen di balu àq di leen bal àq jërë ngeen jëf wasalaam